jërë ngeen jëf mbokk yi tey jilee ñu ànd ak yéen ci seen émission bu mag bi la di euh, euh, takku sow takku sow wala bokk euh, ci ngeen bokk ci ngeen bokk nag ngeen daan di déglu ci wàllu rajo wax nañ leen ko nag léegi ñi ngi li ñuy gis ci ay image ñuy dalal ay gan yoo xam ne xamoon nañ ñoo ñoom dippi rajo ñu rafetlu seen xam-xam ci biir réew mi ak biti réew tey ñu dalal imaam Babacar Sylla imaam la ca cité Sonatel en même temps di membre ci ànd sàmm jikko yi imaam ñu bàyyi la nga nuyoog internet yu solution info ñu dellu si waat jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah yi bu ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di nuyu waa solution yëpp waaye di nuyu waa ci ngeen bokk ndax ci ngeen bokk moom cosaan la waaw ah, ci ngeen bokk maa la woon depuis fay 2013 yaakaar naa jàpp 2014. waaw loolu xaw na yàgg. xaw na yàgg moo tax maa ngi am mbégte lool tey bi mu nekkee image. Mhm. loolu sant yàlla la bu wér a wér. ñu ngi ñu ngi am mbégte tamit bokk ak yow jataay bi. Mhm. nuyu téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel yëpp. incha allah alhamdulilah jërëjëf imam kon moom la ñu dalal tey fas yéene waxtaanee point yu bëree bëri. Mhm. Euh, la ci njëkk rek imam euh, ñu dem directement ci waxtaan wi. Euh, waxtaanee lu jëm ci mbiru réew mi. réew mi nag bu ñu ko waxee kenn mënu fee bàyyi ànd sàmm jikko yi nga xam ne nee ngeen da ngay dañuy sàmm te ñu toll ci jamono boo xam nee nañ imaam saaga si bari na mhm. ku wax ñu saaga la ku wax ñu mhm. insulte la xale yi koy def nee nañu ay xale Ousmane Sonko la mhm. loolu la kilifa yi wax ana sàmm ànd sàmm jikko yi fu ñu ne waaw ànd sàmm jikko yi de mi ngi fi mu nekkoon ba léegi rek jógagu fi ndax yaakaar naa ne fi la fekk saaga yi ànd sàmm jikko yi dina nekk ak moom buy jógi dina ko fi bàyyi buy dem ndax dafa ànd ak àddina fa loo xam ne mook doomu aadama ñoo ànd lenn rek nga ci mën mooy da nga ciy bay sa waar sa kem kàttan ci yàlla muhammad sa alayhi wa sallam génn na àddina te bàyyi na fi ñuy naan sàngara dëgg la génn na àddina bàyyi na fi ñuy sàcc génn na àddina bàyyi na fi ñuy njaaloo waaye def na ci kem kàttanam bu tuub ba daan am wàññeeku na loolu rek mooy mission wu ànd sàmm ko yi ànd sàmm jikko yu mënul fexe ba Sénégal ñépp nekk ci ran yu jub waaye mën naa fexe ba ñu baree bare nekk ci ay rang yu jub nag. Mhm. waaw loolu moo tax dégg nañu rek ñu ngi wax euh, saaga yi mais man jàpp naa du lu bees mais li ngeen lu ngeen di xaar ci médiation wala dox jàmm ci diggante ñaari camp yi nga xam ne jàpp nañu ni tey bu ñu toogoon. Mhm. Euh, saaga yi dakk wala lu ñaaw li dakk lu ngeen di xaar ci euh, doxal mbir yi. waaw dox bi nag du xaw a yomb xam nga gis président de la république ci moom lay dépendre. ah mais yéen président woowoon na leen ngeen waaw loolu laa bëgg a wax ma ne gis ko ci moom lay dépendre. waaw mais dama ne yéen da leen a woon ngeen. bañ si mos nañoo woo ñu lànk. waaw léegi na ñëwal ci loolu. mais façon bi mu ñu woowee woon moo baaxul. ah ci naka. Euh, da ngay toog. Mhm. dégg benn ndawu président de la république. bu ñëw ne la président moo leen soxla. Mhm. laata ngay pare ak moom keneen woo la ne président moo la soxla mën naa jël misaal ci ànd sàmm jikko yi ba mu yëkkatee loi bi président di ko woolu. lu mat ñeenti ndaw yi président kenn ku nekk wax Babacar Mbow président da leen soxla pour mu indi leen. ñeenti ndaw ñeenti ndaw. kenn bokkul ak sa morom am na ci koo xam ne bi ko Babacar ne diw sax doon na ma woo pour ñu le ko dana ko ah c'est-à-dire kon yëgooguñ. ok mais loolu leerul xanaa xamoo ñàkk a dem mu ànd sàmm jikko yi yooyu ci la bokkoon. Hmm. est-ce que président moo soxla woon ànd sàmm jikko yi wala ay ñoñam ñoo bëggoon ne ko xaaral ma jàppal ñi indi leen fii teg leen. waaw te loolu dafay am ñoo xam ne loolu la ñuy liggéeyal kilifa dañ naan ko gars yi mën naa leen indil ba fii nga toog nga waxtaan ak ñoom su boobaa nag boo demee hmm. jubluwun ci dara lu dul décrédibiliser la waaw muy ñi ma doon nañ kat ñëw nañ soog dëgg la solution am fa ñàkk fa am dara dootu fa leerati léegi nag euh, man jàpp naa ne président bu ko dajee boobu ñoroon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg hmm. euh, fu mu mën a jaar ba ñu invité kër Mboup du jafe ñaareel bi ci des condition yi ko sëñ Babacar tegaloon mais jàpp moon conditions yi mën nañ ko bañ parce que boobu jamono loolu la laajoon mhm. boobu jamono li mu laajoon mooy lépp lu ngeen di def na ko askan wi xam de parce que ànd saa mu jikko yi du moo doon daje fële de askan waa doon daje place de l'obélisque waaw léegi nag askan woowu dañoo war a xam lan moo xew ca audience ba moo tax ñu sàkk woon ko audience bi bu mu nekk ay benn nit ak ñaari nit na nekk mbooloo ba pare na nekk direct ngir hmm. askan wi xamal seen bopp parce que boobu jamono dafa sensible trop. dara bañ fa lëndëm waaw dara bañ fa lëndëm. Hmm. loolu rek moo doon sàkku bi mais jamono bii ñu toll nag lii. Hmm. fii ñu toll li tax dox ko du yomb mooy président moom lay neex nga gis ko. te li wér te wóor mooy bu ko leeree ne li ngay dox nii da nga ko bëgg a dox pour mu bàyyi loxoom jàpp ma ne dina yomb. donte ñun tànte wuñu ko. am na nag benn kuréelu imam bu koy tardé te imam euh, Mor Mbaye jiite ko. mais lii tax du yomb mooy ñoom dañu jàpp ne. ñu toll nii. rapport de force moo baax. Ah ci ñaari côté yëpp waaw. Hmm. ci opposition bi dañ jàpp ne. Hmm. fii defante rek fi sës. ñi ci état bi jàpp ne fii mu nekk nii defante rek moo fi sës waxtaan jeex na. Hmm. loolu moo tax fii mu nekk nii dugal seen nopp yi dara du yomb. d'accord waaw ku koy dox ku nekk. maanaam la ah yàlla na nga réussir de mais du yomb. d'accord ah. mais nee na ñu ko fekk ñaar ñuy xeex. Euh, nga fe nga fekk képp doole nga jàpp loxoom. Ah. da ngaa sot yéen est sotu leen. ndax yéen euh, imam ndax da ngeen di bañ ku leen ni ay politiciens ngeen moo tax waxu leen ci injustice bi ne ci réew mi pour président Sall xam ni kat moo ne woon ñaar lay def hmm. te magam jëmm la hmm. mu ñu ngeen ko loolu ni ko bul dem mais ba léegi kenn déggu leen ci man jàpp naa ne troisième mandat moom du débat ah man loolu laa jàpp moo tax jàpp ma ne wax jin ciy wax sax pour man bëri wax la rek président Macky Sall du moom la ñuy wax naan ko waxal ne doo def troisième mandat moom amul xalaat ci troisième mandat loolu laa gëm amu ci non non amu ci xalaat amu ci xalaat comme amu ci xalaat mooy ay texte moo ko tënk ak i règle na ko ku def ñaari mandat demal mu def ñaari mandat sëriñ Choy bu xanaa xamoo man ñaar dañuy wax ne. troisième mandat conseil constitutionnel rek moo ci mën a wax lu leer man loolu gëw ma ko. man dégluwuma ci conseil constitutionnel. suñu constitution wax na ci leer na ku def ñaar demal. Abdoulaye Wade def na ñaar forcé ñetteel bi ñëpp xeex ko mu dem. Macky Sall def na ñaar lu tax ñuy laajaat conseil constitutionnel soxlawul ñu leen di laaj. Ah. texte yi leer na ku def ñaar na dem. président amu ci xalaat na toog bu ñaaram yi jeexee mu dem. Mhm. mais nag bu jéemee tenté pour mu def ñetteelu mandat man jàpp naa ne su boobaa am na ñoo xam ne foog ñu wax ndax am na ñoo xam ne dañ ko bañ a jiitu te waxul. Ah, gaa ah. am na ndaw ah, ñu kilifa du jiitu. waaw bon kilifa boo teelee wax dañ lay piéger. Mhm. yow président Macky Sall tey bu amoon kilifa yu ko woo ne ko Macky Sall lii nga yëkkati teg ko ci suuf mu ne leen man kenn déggul ma wax ci. Mhm. ñi ciy wax ñooy waxal seen bopp. waaye man bu jotee lii laay def. Mm. su boobaa da lay daaneel mais da nga koy déglu ba mu waxal boppam li ma gëm mooy bis bu ko waxee dana dégg kàddu yu musul dégg ci àddina. Mm. parce que troisième mandat yi bu mënul nekk ci réew mi. d'accord wala troisième candidature. Mm. mënul am ci réew mi. bu forcé yéen imaam yeeg sëriñ daara yi pare ngeen pour wàcc mbedd mi. ah no du ñu wàcc ci mbedd mi mais ku nekk am nga sa xeex. <laughs> xam nga tey ni Abdou Karim Gueye di xeexee Guy Marius Sagna di ko xeexee Cheikh ko xeexee mënul bokk ak ni Babacar Sy. amee ah, Touba Kër gis naa fa ko takk ndiggam sol caay ak sànni xeer. ak bolok man ah, sax ma jaaxal parce que marche moom bu ma fa doon ma sol <laughs> ah. mais am na méthode ku nekk méthode bi nga mën a xeexee. ñun fi ñu yàlla mën loo te muy micro ya. Uh-huh. ak daara ja. Hmm. danañ fa def lu ñu mën d'accord mais ñi nga xam ne mën nañ ci euh, wàcc ci mbedd yi ñoom su boobaa dañoo war a wàcc ci mbedd yi parce que man dama gëm ne injustice ab imam ak oustaz ak activiste bi ñoo ci yem. injustice ñëpp ko war a xeex. Mhm. te troisième mandat crime la loolu kenn du ko weddi. amul mhm. kenn ku mës a yëkkati loxoom troisième mandat te bakkan faatuwul amul. du Sénégal du réew yi ko wër mais kon crime la. wax boo xam ne heure boo ko yëkkatee ay nit dee. Mm-hmm. mais loolu crime la moo tax troisième mandat man dama gëm ne képp ku ko tenté bu jàlleeg bu jàllul bu ñu paree dañ la war a traduire justice ndax yow crime nga def. crime nga def waaw ah, troisième moom. macha allah la te waruñ ko may sax. am nga ci xalaat wala amu ci xalaat pour man amu ci xalaat. d'accord mm-hmm. euh, jërëjëf Imaam ak loolu lépp de xew jombul ni euh, ñu fi am ay jataay yoo xam ne jamono dina firi li ngay wax. Mm-hmm. Euh, assemblée na ay wax li ñu leen ba neexal leen. ba ngeen jëlee ba ngeen fexe ba daaneel ndax dégg naa bi mu mu ni yéen ko diaboliser yéen yéen ko diaboliser réew mi naan góor jigéen la fiy teg góor jigéen la fiy teg bali xew-xew mm-hmm. mais boobaak léegi fu ngeen toll ci assemblée gars yi teguñ dara de waaw assemblée bi nag xam naa fi mu tolloon tax na jéego yu bëri mënuñ ko woon a am mooy ñoom bu ñuy dooru dugg di installé wu voté ay budget dooru jubli ci voté ay loi jàpp naa ne nag léegi ñi ngi war a jëm nag ci dugal ay loi fi ngeen toll nii waaw xam nga assemblée bu ñu door a ñëw ñoom dañuy installé wu peut-être mën na leen a jëlal un mois un mois et quelque. Mhm. bu ñu paree dañuy voté budget yi. Mhm. fi mu ne nii benn luwaa jàllagul. léegi nag fi mu ne nii installé wu nañ budget yi jàll na. Mhm. voté ay loi doo nga des. te ñoom waxoon nañ ne. loi wu euh, góor jigéen bi. ci loi yi nii njëkk a dugal la bokk. ñoom loolu la ñu waxoon. ah loolu la ñu waxoon mooy opposition bi. opposition bi yeewi wallu. d'accord dëgg la kii Pape Djibril ci la bokkoon. Euh, beneen bi kan la yeewi la wallu la ak Pape Djibril ñoo ñoo nangu woon pour bokk ah seetu leen woon Pape Diop bokk gis-gis nanguwul woon signé ah bennoo nanguwul signé ah bokk gis nanguwul signé bennoo nanguwul signé aar Sénégal nanguwul signé mais wallu ak Pape Djibril ak yeewi ñoom signé woon nañ ko ne bu ñu demee assemblée danañ porter loi bi te parti yooyu ay sénégalais ñoo ko jiite ah bien sûr Pape Djibril euh, bon dëggal ma Pape Djibril ah, moo jiite bokk gis-gis c'est grave euh, yeewi du yi nu mu tudd aar Sénégal ah. ñi ko jiite woon entre Alassane Sall Abdourahmane Diouf Thierno Bocoum Marème xawma Soda Ndiaye mm. bon ñoo ñoo nekkoon ci ted yi d'accord beneen bi bon benn bokk yaakaar mi ngi noonu soxna mii ko jiite woon xam naa tey moom dinañu voté loi bi insha allah parce que gis naa mel ne change de position ah. dana ko voté léegi nag ñi ngi leen doon déglu waaw ah ñi ngi jàpp ne dinañ dem parce que am na ay audience yu jot a am woo nañ coordinateur. Euh, yeewi askan wi seen seen groupe parlementaire. dalal na le coordinateur kër Mboup ak benn délégation ànd sàmm jikko yi. pour càmbaraat wax ko ñu beesalaat loi bi ñu pare pour dugal ko. bin ci paree bokk gis-gis dalal na leen semaine bii nu génn rek. Mhm. Moussa Jaxate yaakaar naa la tudd. Mhm. moo fa nekkal Papa Diop léegi. dalal na leen bii paase. Mhm. suba incha allah am nañ audience ak euh, waa Wallu Wallu. te waa PDS waa PDS waa PDS mooy waa wallu mhm. ñoom tamit bon li tax wallu Mamadou Lamine Diallo ci la bokk te Mamadou Lamine Diallo parti boppam la bokk mais dafa bokkoon ci coalition mhm. wallu ñoom war nañu dala ànd sàmm jikko yi mardi mhm. cest à kon ñu gis ne mi ngi avancé tuuti tuuti gëm naa ne wallu ak yeewi képp bu ñu booloowee loi bi bu demee dina jàll léegi nag mën nañ leen a taaxeelu comme dalal nañ ñu ba waxaat ne ñoom dañ koy dugalaat seen position pare nañ ci acca ngeen ci yaakaar waaw am nañ ci yaakaar ah buñ ko deful fañ ne woon la ñu nekkaat di Hmm. bu ñu lànkee jàllale waa bi nekk ci seen bopp. Hmm. danañ dégg lu raw li waa bennoo doon dégg. Hmm. man maa la wax lii de. ngeen opposé leen. bu wéree wéree wéree a ah, mais ñun. loolu parce que imaam nag campagne ba campagne ngir bëgg a jot neex na de. waaw parce que ñoom bii campagne. dañoo wax ñëpp ne leen. bu ñu demee danañ voté loi bi. ñoo ko wax de kenn sexalu leen lem ak suukar. ñoom ñoo ne dinañ porté loi bi te bëri na ñu leen voté looloo tax ñu voté leen. c'est-à-dire kon mënuñoo dem ba assemblée nationale taxaw fa di lii ka laakaaka xoolaat mënu nekk de su ko nekkee dañuy xam ne kon ñoom li ñu doon xasee bennoo benn la ñu ñoom ñaar su boobaa ah lépp lu ñuy traité benn dañ leen koy traité te gëm naa ne bu élection ñëwaatee kon dana feeñ ci ñoom. d'accord loolu gëm naa ko parce que yi ñoo bëggul góor jigéen waaw loolu gëm naa ko alhamdulilah kon jombul bu ngeen jégee génnee ci audience bi feeg mardi bi mhm. euh, mhm. euh, ba avocat la xam nga ko waaw gis Euh, dafa am ay wax yu mu wax que ni Sénégal. bis bu ñu jëlee réew mi. fal Ousmane Sonko benn la rek ci seen ay euh, jubluwaay. Mhm. mais seen jubluwaay bokk na ci jëlee nit ñi ci jaamu nit jaamu seen borom donte mhm. nee na wax ji nañ ko déggee la am na nu mu ko waxee. bi nga déggee wax jooju noo ko déggee yow. deful dara ci ma. li ma ko njëkkee dégg. non bi ko Sénégalais naqaru deful ah, dara. ah waaw waaw après bi mu jëlee ampleur laa commencé di seetaan sama bopp ma naan waaw man maa déggul wax ji wala nit ñi la. Mhm. c'est-à-dire man vidéo bi déglu naa mais jàpp naa ne benn politicien buy wax di jaay nit ñi projet am boo xam ne bu ëllëgee buñ ko joxee réew mi mu wax leen li mu ci bëgg a def mu jeex. jël na ay exemple yu jëm ci diine te loolu yàgg naa fii da gis politicien buy wax ci diine sax indi aaya alquran indi addis aaya bi mu indi lii muy def taxu ko woon a jóg waaye mën nga koo dugal ci biir loolu exemple la tudd exemple bi ma ko déggee noonu laa ko jàppee ma bàyyi mu jàll ci laa gis ñu koy partagé naan attention ah, ah kii ka daa ni tarixa yi la fi bëgg a jëlee ah kii ka nee na ñoom buñ ñu faloo suñ sëriñ si lañu fiy jógee ma ne waaw man maa déggul wax ji wala lan la ma déglu waat vidéo bi dégguma sëriñ dégguma tarixa mais ma ne lan moo tax ñu bëgg a askane wax ji ak tarixa parce que man kii wax ne ñun bu ñu falaw dañu fiy jëlee jaamu nit waaw fexe ba nit ñi di jaamu yàlla kese rek nga ne kon tarixa yi lay wax cest yow da nga tuumaal ka tarixa kon dañuy jaamu nit mhm. man de wallahi alazim bi ma ko déggee sama xel dajul sëriñ mhm. dajul tarixa mhm. dajul dara dama jàpp ne dafa am ñu ne ci administration bi di jaamu seen patron di jaamu seen chef. gis nañu fi benn ministre boo xam ne bi mu démissionné dafa ne. premier ministre bi ko yilifoon dana ko. président bu la digalee. da ngay nekk bouton. mu ne ko man bu ma président digalee ñaari bouton lay doon. waaw ñaari bouton laay doon mu ne ko man du ma bouton mu ne ko man ñaari bouton laay doon cest à man foofu laa doon xoolee wax ci. Mhm. ñi nga xam ne bu chef bi bëggee dara du ñu xool yàll duñu xool yeneen du ñu xool seen bàmmeel du ñu xool lu bi wax. duñu xool askan wi seen yoon lan la kilifa gi bëgg ñu def ko cest pour man loolu mooy jaamu nit mais ab sëriñ ak jaamu xërëm pour man loolu di ko jéem a méngaleeg wax ji sax. Hmm. dafa xaw a garaaw man jàpp naa ne fi ñu ko yéegal eggu fa. d'accord affaire u tarixa gaw ma ne woon ne moo ko tax a jóg te xaw ma politicien bu dof ci àddina fii ku dof ba taxaw. Hmm. di woote fii ne da ngay xeex tarixa ne réew mi nga réew mi moom boo bañoon tarixa yit hmm. soo bëggee réew mi tarixa moom di ko bëgg par dëgg la ndax seen loxo la nekk. ndax ñoo la ko mën a jox voilà. Ah. kon ak ndof yeggu fa jàpp naa ne empleur bi ñu ko jox jaru ko woon ay politiciens yuy politique. Mhm. mën nañu jël wax ji nag ñoom duñ la baal erreur de communication loolu mooy problème politique. Mhm. mooy booy politique bu juum ñoom dañ koy exploité. Mhm. mais nag yow en tant que nitu diine yow yaay bañ politiciens yooyu di manipuler seen morom yóbbaale la ci. loolu laa dul nangu man dinaa xam ne seen geeru politique nag mën ngeen ko def seen biir mais après man su may fatwaa ci diine mhm. dinaa xam ne lii politique la diine taxu koo jokk mhm. du affaire tariqa du affaire sëriñ mais affaire de parti politique la. d'accord waaw loolu rek la woon. mi ngi noonu xanaa kon loolu moo leen xaw a ragalloo ba mhm. léegi jihaad moom tuddatu leen ko seen. jàkkee waxoon naa la ah, waaw parce que baatu daawa bi mu indi. ok waaw daawa ah. ñu ne hee jihadis. est-ce que lu tax imaam tuddatu leen daawa jihaad. ah xare Badar sax ñemeetu leen ko nettali. Ah, résistance bi amoon ci julli lu tax loolu lu xew. comme gars yi nee nañ baat yooyu ku koy tudd rek léegi da ngaa bokk ci gaa yële. waaw nee nañ booy wax ay terrorisme ay jihad ay nangam dañ naan ah bon kii kon daa bokk ci euh, wahabis yi wala terroriste yi wala nangam gis nga loolu loolu tubaab yi ñoo ko def suñu bopp. Mhm. baat bi boo ko waxee ci tubaab du garaaw. waaw boo ko waxee ci olof du garaaw. boo ko waxee ci arab ñu ne i cest mooy gis nga ñun ni ñu tubaab bi ñaawale lee diine. foog ñu def ci attention. Hmm. tubaab bi moo ñu ragaloo diine ba boo ne jihaat ñu fatt nopp yi. boo ne charia sax ñu ñu tiit. loolu tubaab bi moo ñu woon. boo saqalee sikkim ñu seetlu. voilà hmm. sikkim boo ko amee ñu ne attention kii daa mel ni terroriste la te ñoo gën a xam ne sikkim ak terroriste amul lënkaloo. ñoo gën a xam ne baatu allahu akbar amul lënkaloo ak dara. Hmm. ñoom ñooy def yooyu. léegi nag buñ la ragalloo diine ba nga ragal ko da ngay mujj def li xaar mbay ma jaaga doon wax. xaar mbay ma jaaga dafa mas a woy ne. satalaak kurus mhm. kaalaak sikkim mhm. yaay booy bañu ma ko dama koo ragal ah. nee na bañu ko de mais na koo ragal façon bi ñu gaaralee l'islam léegi ñu bëri dañoo ragal l'islam même sa parti politique sax yow soo ko yoree da ngay moytu affaire u l'islam di ci dugg sinon bu ci duggee ba nit ñi ne ah bon kon kii affaire u terroriste l'islam ak terroriste amuñu lii ah. man terroriste pire dama gëm na tubaab yee ko formé ndax Sonko dañu bërit ñu ne ko am nga sikkim waaw say jabar dañuy muuru waaw gis nga <laughs> ñi ko topp di bàyyi xel di miim di miim ay at. ngay justifier duma ko. imagine loolu yow nga dem ba. buñ la cofee dara ci diine sax foog ngay weddi pour nga soreeg loolu mais loolu nit ñi ragal loo diine man dama gëm ne loolu la tubaab bi buggoon ci diine l'islam pour ñu ragal ko. Mhm. terroriste pire tubaab yi ñoo ko créé gis nga Mali. Mhm. gën nga faa dégg attentat terroriste de. yàgg na. fa lay yem jeex na fii ak France génn na Mali dootoo fa dégg ci terroriste. wax nga dëgg de ndax daf mel ne xam nga waa kii. Goïta bi mu ñëwee léegi. waaw déggatoo fa ay attentat terroriste déggatoo ko. c'est fini bi la. tubaab ñoo koy def ñoom ñoo gën a xam ñooy former seeni nit. di leen defali sikkim di leen wax loo allahu akbar jiñ leen terroriste. Sénégal jàpp ma ne amul benn nit bu am fitu naan da ngay lënkaloog ay terroriste naan da ngay ñëw fii di laaj Sénégal. loolu kenn sañoo. d'accord parce que du jàll xamuñu ko. macha allah dafa mel ni mm-hmm. imaam li ñu dese ci waxtu bi euh, toll na ci ñaari minutes. Mm-hmm. xam naa jotaay bi gàtt na. Mm-hmm. waaye da ngay ñëwaat. incha allah waaw da ngay ñëwaat incha euh, ñu ñu ñu seqaat ko. incha allah euh, léegi ci deux minutes li ma a bëgg a laaj. <laughs> noo gisee Ousmane Sonko bi ñu ko téye keroog ci corniche bi ban jàngat nga ci am ak bi ñu ko gisee ñu toj veeram bi. ni ko poymet yóbbu ko. waaw balaa may ñëw ci ni ma ko gisee ma ñaawlu jëf ji ba pare parce que jëf ji dafa ñaaw. jëf ji rafetul. donte lay nañ ko wax ne dañ ko doon jéem a sécuriser mais ku lay sécuriser champs bu du toj sa oto. <laughs> waaw ku lay sécuriser ku lay sécuriser yow nga toog mu toj ay verre ci sa kaw pour aar la. te man laa xàllal nga dem. ah te mën la accompagner nga dem mu toj verre yi sa kaw ba seetu yëpp tuuru sa kaw moo tax man yi dañ ko doon sécuriser gaw ma ko bon mën na nekk lay pour nga rafetal ko. mais yow loo ko foog. li ma gëm mooy dañ doon wane seen doole. ah wane ni saññan quoi. man maanaam dañ ko bëggoon a wan ne ko. luñ bëgg a def. lu ñu la bëgg def mën nañ ko def mën nañ la yëkkati mën nañ la yóbbu mën nañ la toog la mën nañ la bàyyi. te xaddu dama waaw man nag jàpp ma ne fayda la ci ab état muy xëqanteeg benn nit lu toll ni état laa wax de état GIGN BIP gendarmerie police ak benn nit ñu naan ko maa la ëpp doole. waaw état bu demee bay jiiñanteeg benn nit. mën naa la mënuma la mais chooy bu loolu c'est grave man ak yow mën nañ jaante loolu mais état bu taxawee di këkkanteeg nit naan ko mënal naa la mënaloo ma pour man mm. loolu fayit la beneen bi ci des mooy mm-hmm. ma rafet lu dal gi ma gis ci moom bi ma ko gisee ah, est-ce que gars yi dafa wax day yuuxu ah, bi mu def non chooy bu boobu ragal mënu ko man bi may seetaan vidéo bi li ma ci marqué mooy mm-hmm. ni mu toogee ñuy toj verre bi mun a tekki di xool waa ji non fit woowu nag moom jàpp moo woon ne Ousmane Sonko am na ko parce que mm-hmm. en général boo ragalee. bu hmm. buñ ne télli verre bi da ngay daw. waaw moom raful. yëngatuwul. verre yi tege woon ci kawam sax gisuma ni lii na ko loolu na gis naa ne dal googu. Hmm. lësu bu am solo la. Hmm. dal googu moom xaw ma lu mu pare la xaw ma yàllaa ko ko may mais dal googu jàpp naa ne ñoom bu ñu seetaanee vidéo bi danañ xam ne loolu. leçon bu rëy la. fita ngi ci sago ngi ci. macha allah en tout cas nañ ko rafetal daal mais mënoon na ñàkk. imam yegg si nañu sënkam fi ñuy jeexalee xam na mm-hmm. internet yi ñuy seetaan doyaluñ mm-hmm. man doyalu ma mm-hmm. waaye ñu joxante bi daje wallahi insha allahu taala ba ah. mar dég jàmm insha allah aywa kon ñu ngi gërëm baax di la sant mi ngi noonu mbokki imam Babacar euh, gërëm leen sant leen jaajëfal équipe Takusoo bi nga xam ne seetaan ngeen leen léegi ci euh, émission bi la di euh, solution info Modou Diouf moo nekkoon ci xarala gi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa